donc directement sama avion a ah, Is it, is it, is it like protocol that our plane's supposed to be front? <laughs> ah kon léegi ñu pousse avion bi pour avion moo gis ñëw kii. waaw waaw. the guest is here. wow wow Balde Awa ngi noonu. le lii ba jàmm la awa jet privé la ñuy laal noonu kookal la njole taal cey sama bëgg ah, ma ne sedd wala baax na non non sedduma baax na ah, ah. baax na pilote bi moo kii pour mu wàññi ko non non baax na fi ne naa liw amul problème naa congelé waaw baax na amul problème am naa mbàjj ah mbàjj yaa ngi nii su fekkee da nga liw waaw jox ma benn ba ba ba sàngul benn mbàjj papa am na benn mbàjj ma sàng <laughs> sama rakk jàng may sàng <laughs> ma may sàng génn na mbàjj ma jet privé ba génn na mbàjj ma nee na naa sangu sang na ma waay laa ilaaha illallah <laughs> ëpp na maa ngi nii di sangu